na ngi nii ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci anam bi nga xamante ni noonu la ñu war a loger waate commerçant yu ñu jëlee ci mbedd yi li ni mel nag daal di jur coow bu baax a baax marché champ de course bokk si bërëb yi nga xamante ni dañ leen daal di joxoñ fii nag ñi fi nekk di xamle ni daanaka place amatu fi. marché bi accessible na mais dafa xaw a làqu. li mu làqu moo tax ñu bëri xamuñu ko nit ñi dañ ko xamul. mais jafewul la ñëw. marché xam nga warul nekk ci site boo xam ne dafa enclavé. bon marché dafa war a foo xam nekk foo xam ne dafa war a am accessibilité. bon ñun sax bi ñu indi fii wax na leen ko mais comme dañu waxoon ne y aura des mesures d'accompagnement. naam sax rafetlu wuñ anam bi nga xamante ni nii noonu la yenn commerçant yi di occupé mbedd ndakaaru yi. yu ci bëri ñu daal di koy def marché wante rek ci seen gis-gis maire yi ñoom ñooy responsable yi. nit aussi su ñëwee toog ci mbedd yow nga légaliser ko euh, comment. di ko fayloo ay juuti ay redevance su boobaa day defe ne fi mu nekk légal la donc y une part de responsabilité des démembrements de l'État euh, commune bi day la laaj chaque jour juuti nga verse ko pendant une dizaine d'années da ngay def ne da ngaa nekk dans la légalité te su boobaa sax da ngaa nekk dans la légalité parce que yaa ngi jël sa xaalis di ko verser si trésor public kon yooyu yëpp aspect yooyu yëpp la ñu war ñeenti at a ngi nii ñu daal di leen jëlee bi ñu ëpp ci ñoom nag yàkkamte delluwaat fale ca Sandaga